ànd bi ak Equivox TV ginnaaw bi ñu leen a nuyoo dal leen ak jàmm ci seen journal de l'arène ma ciy ànd ak Mbaye Babacar Babacar nuyu naa la. ajaratu Adja Aminata Diouf. maa ngi lay delloo nuyoo. ci loo nekk. sant suñu borom. naka suba si. mu ngi nii rek ñu ngi sant yàlla. Mm, yaa ngi baax. waaw man chaque jour tuuti benn sant yàlla. lépp fàll la quoi boo yeewoo rek. tal mm. rek sant yàlla loolu kenn amul pireem te muy dëgg kon yàlla nañu yàlla may ñuy fekke ci yeewu tey tal rek tegal ko bépp doomu aadama waaw kay tey da ngaa xëyee wax de consommation locale waaw waaw parce que parce que ay africain lañ tamit quoi te lii mm. waaw suñu dëkk yi ñoo koy defar di ko ñaw kon defe naa ne dafay baax des fois nag ñu génn li ñu moom a ah. mm. parce que Afrique am na ay ressources boppam. noonu mm, la xam naa bu subaa damay def wax man mi. waaw da ciy baax de waaw wane sa bopp. <laughs> noonu la voilà ñu def seetaan rek revue des titres daal di ñëwaat ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa jeudi 21 janvier 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb tey fa mu xëy ñëw ci combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Bombardier mu Mbour ak Balla Gaye numéro 2 mu Guédiawaye ka mu xëy seqal waxtaan nag kenn la mooy ki nga xam ne nii moom moo di Zallo ñëw na ci ñaari mbër yi nga xam ne nii daal ku ci ne say atu gis na ko moo xam ki nga xam ne moo di bomb la wala la jàpp na ne ci wàllum force moom moom Zallo la mu gis daal nee na Bombardier dafa juddu judduwaale force am maanaam mbirum doole moom kenn du fa nekk di ko nattable ci moom ndax loolu ay yëfam la maanaam biir këram fa la mbir ya loo xam ne ni wax na ko ci côté staff tamit jàpp na ne soo bëggee dégg-dégg Balla Gaye 2 moom am na staff boo xam ne bu solide la boo xam ne ni daal bu wóor a wóor bu takkoo takkoo takku technique tamit jàpp na ne Balla gay numéro 2 moom côté technique nattable ko ci làmb mbër moom du yomb kon daa gis ne kon Balla daal techniquement moom moo gën a sax taxaw mystique tamit ñëw na ci nee na Bombardier ci boppam wàllu mystique moom ay xar xarfa xuufa moom zàlloo la mu jàpp mooy Bombardier côté boobu moom maanaam da cee blindé boppam ba nga xam ne ni moom jaaxal ko ca lu jafe la wàllum xeex ci ñaari mbër yi bu dee Balla la la zàlloo jàpp mooy Balla xeexu mbedd moom mën na ko lool maanaam bagarrerie comme na ko tubaab bay waxe waaye Bombardier tamit dafa jàpp ne moom ci wàllum xeex ne ah xeex moom Bombardier lu mu man la yëglikaay bi tey mu xëy daal dalal sàllu mu ngar daajoo sunu làmb wax fa ba ne xaaw sunu làmb xëy tey andil ñu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer keneen koo xam ne nii moom xëy na tey di wax moom nag la mu bëgg wala mu koy ñaan lenn la maanaam ak benno ci waa làmb maanaam bokk daal genn kàddu goo xam ne moom la ñuy waxe ngir mën a défendre intérêt yi làmb ka ko wax nag du kenn ku dul Sambay wala Sam Production dëkk ca Caaroy lii daal la xëy tey di wax moom promoteur bu làmb ba tey bu nu continuer ak yëglikaay bi di sunu làmb moom fa ñuy dem nag mooy ca rëg-rëg ak combat MMA ba nga xam ne moom la dëgmal suba ka nga xam ne nag xam-xamam daa jëm ci wàllum maanaam combat yoo xam ne daal wàllum dóor la muy kot su jabong kot su jabong moom la mu xëy di xam le lenn la jàpp na ne kii di Reug Reug moom am na yoo xam ne ni daal am na ko yu baax a baax ngir mën a gañe nag la nga xam ne moo di combat bi wala gañe kii nga xam ne nii moom moo di Alain Ngalani loolu la kot su jabong gis mu mel ni ki Reug Reug ma war a jongante jongante ba moom jàpp na ne li am daal moom moom ci boppam fi mu nekk nii gëm na boppam am na ci boppam yaakaar kon jàpp na ne moom loolu moom du doon lu ko jaaxal la mu gis daal mooy suba moom fa mu fas yéene jaar ak Alain Ngalani ne na moom ba pare ale bu ko séenatee dana ko xàmme loolu mooy waxe ki nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg ba tey buñ fa jógee ñëwaat ci lambi réew mi nga xam ne nii mooy lamb ji ànd ak dóor Thiès nag fa la ñu jëm yëg li kaay baa xëy dugg fa mel ni ki nag Thiès moom seenu taxawaay daal ci lamb ji bu bëggee dégg-dëgg daal daa mel ne am nañ ci ay jafe-jafe ci wàllum ay infrastructure yoo xam ne dëkk ba manqué na ko problème mu promoteur tamit nekk na loo xam ne lu sonal waa cees la ba tax na daal lamb ji am war a doxe moom doxewu fa keneen koo xam ne nii moom ne lamb ji doxe neexatu ko ndax corona bi muy dugg def di am mbër moo tax nag moom nee na pare na ngir dem fa nga xam ne nii moo di ci réewum Gambia daal fas fa yéene di jongante daal di fa ñàkkante loolu mooy li nga xam ne nii moom la ñu yëglikaay bi tey xëy andil ba tey buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne nag moo di ci record record moom la mu xëy tey andil ñu ko lenn la maanaam ka nga xam ne moo di Tonnerre mu Pikine mbooloo moo xëy wala boog écrit ba mu ne di Pikine mbooloo la yëglikaay bi record xëy tey jàngat ci yi nga xam ne moom la ñu génn boo bëggee dégg-dégg 19 victoire la ñu def 22 défaite ñoom waa Pikine mbooloo mel ni ki nag moom Pikine mbooloo bëri mu ñuy combat te bëri na ñuy defet te boo xoolee itam am na ci mbër yu baree bari yoo ne ni moo xam ñoom tonnerre la ak ñoom nga xam ne ni ñoom ñooy ay kobraak yeneen mbër yoo xam ne ñoo nga fa seeni mbir nam daan doxe doxeetuni ba tey bu ñu continuer ci record mu ngi nu xëy xamal tamit di wax wala boog rëg-rëg moo fa xëy tey di wax ne daal moom mu dafa dem fa nga xam ne moo di ca Singapour ngir nag défendre la nga xam ne moom moo di couleur réew mi nga xam ne moo di Sénégal ba tey làmb ji nga xam ne nii buñ sàgganee est-ce du taxu ca Gàmbi ndax corona bi record xëy na tey ñëwal ñu ci kañ ca dikkal nag du kenn ko dul ka nga xam ne moom moo di Abu Ndour mel ni ki daal ndax lamb ji kon xafasee sut yéene yóbbu ko fa nga xam ne moo di ca Gambia ba tey bu nu continuer dem fa nga xam ne ni moo di ca Equivox moom daa mel ni ñoom la ñu nar moom maanaam su mbir yi dëgëree fii ba neen su fee bëre ñoom la ñu nar mooy la yor ñu toxook moom yóbbu ko Gambi ngir fas ko fa yéene nag organiser mel ni kon daal fi mu nekk nii corona bi lépp lépp moom la maanaam fi mu nekk nii moo tënk ñëpp jatang ñu waaye xanaa ñu ñaan yàlla rek moom mi nga xam ne mooy borom kun fa yàkkoon yàlla na ko fi jëlee jàmm ba tax nag sunu réew mi nu mën fee continuer di def lañ daan def ndax xam nga maama Lamine garga numéro 2 ca Gàmbi ne ma du neex de waaye boo ko defoon fii dana gën a neex waaye nag ku amul yaay da ngay nàmp maam xulle voilà li mu nekkoon revue daal di ñëw ak rek suñu journal suñu làmb Euh, Babacar ñu daal di ñëw nag ci bagarre mystique technique diggante kii di Balla gay ak B52 Zallo nekk ancien lutteur ñëw ci euh, ñaari euh, ñaari mbër yooyu loo ci xam. waaw Zallo de defe naa tey comme li may wax rek kàddoom ci làmb moom defe naa ñëpp war nañ ko mën a bàyyi xel ndax defe naa ba mu cay mhm. na boppam loolu macha allah mënoon a bëri lool bëri woon xam-xamu làmb te defe naa loolu ba tey jógu fa xëy na at yaa ko mayatoon mu bëri. Mhm. bu ñëwee nag tey xëy di wax ci Bombardier ak Balla Gaye mhm. defe naa war nañ ko mën a déglu. ndax bëri na ak Bombardier yàlla defal nag mu bëri ak Balla Gaye yaakaar na waaye bëri na ak Bombardier Bombardier daan ko defe naa seet na xool na ñaari métam ku ci ne xam na li mu war a wax ci wala li mu wax ci xel mën na ko nangu parce que bu dee force moom li mu wax ne Bombardier dafa judduwaale ak doole macha allah loolu defe naa ne Bombardier moom bu mu ñëwee si làmb kenn du ko xool ne ana mbër mi wala néew na kattan macha allah loolu la ko yàlla defal waaye nag terewul day entraîné parce que kattan du loo xam ne ni da ngay tàggat sa bopp pour nga mën di ko am tout le temps yaa ngi moo tax loolu moom defe naa ne ñëpp xam nañ ko si bombardier côté staff bi yooyu yëpp dugg na ci ak technique bi technique tamit gis na ne Balla moo pour technique ci waxam et puis loolu moom defe naa ne Balla Gaye numéro 2 moo pour bombardier technique ah ñu bëri boo ko wax waaye nag nit daanu la mhm. kon defe naa foofu tamit parce que combat li koy jeexal lu néew lay doon des fois mu jeex foo xam ne doo ko sax xaare waaw côté machine tamit ñoom ñaar ku ci ne wala boog bombardier def ci blindé boppam mhm. waaw bagaar bi tamit bagaar loolu la wax mais Bombardier day xeex normal. Mm. ñu ñaari mbër yoo xam ne daal li ma xam daal ñoom ñaar seen komba xalaat naa ne bi yoon dina wuteeg bu njëkk ba parce que li tax mooy mm. eh, na mu jeexoon xalaatuma mu jeexewaate noonu bi yoon ci wàllu bëre xam parce que dama foog ne bi yoon ba la ñu bëre dinañu xeex te xam naa ne bu ñu xeexee bu njëkk sax xeexoon nañ mais xeex ba yàggul mm-hmm. bii xalaat naa xeex dina ci am mais ñaari mbër lañ yoo xam ne li seen combat nar a neex mooy duñ di ay jàmbaar ay jàmbaar lañ ñoom ñaar duñu dellu ginnaaw Bombardier du reculer benn mbër Balla Gaye numéro tamit yàgg yàgg ngaa dégg mu ne la temps de minute laa la may boo ñëwul ma ñëw mm. kon li ñuy ñaan rek yàlla nañ ca yegg waaye waxi sàllu ji daal mm. ñoom ñaar mm. ak seen staff yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye ba tey Babacar damay des ak yow ci ñaari mbër yi nii ci mystique yow gisoo ne bu ñu sumeekoo ñoom ñaar la mooy gën a dominer eh, kii di Bombardier wala non no mystique ah gisuma ko ah feeñul sa combat bu njëkk bëri waaw mm. ah, xaw ma nag bii di ñëw parce que bii di ñëw yeggaguñ ci yàlla nañ ci yegg ak jàmm waaye combat bu njëkk ba moom gisuma ne ba bal dafa dominé woon Bombardier ci mystique mm. non non non parce que Bombardier itam mbër la moo xam ne euh, coté mystique tamit am na lu mu ci maanaam lu mu fonk la daal waaye Balla itam defe naa ne ku ko wax wax waa <laughs> Casamance defe naa ne waaw tamit mooy loolu quoi ñoom ñaar daal xalaat naa ne mystique moom foogu mu mooy jeexal seen combat bi yoon kon baax na bu ñu jógee foofu ñu dem ci Sambay Fall nekk promoteur de lutte moom itam fi mu nekk nii nag arène bi coow li bëri na torop moom muy xam ne rek ne dañoo war a booloo ngir rek défendre seeni intérêt waaw mbooloo de mooy doole mhm. waaw te yàllaa ko njëkk a wax ñu ci téere yi mhm. waaw mbooloo nit wala ay doomu aadama lay jullit ci la yërmande suñu borom ne rawatina nag ñu bokk lu ñu bëgg bokk lu ñuy def defe naa tey bu kii xëcc aw ni kii xëcc aw man naa ne nañ ko jéem a def te pour man war na mën a li koy indi nag mooy ñu waxante ay dëgg te yàlla rek tax ku ci nekk itam bu fekkee Babacar daa juum wala yow ami nga juum man nangu man sama njuumte fekk si la sew ci lii yoon su ko defee bu dëgg jiitoo lalu rek ànd te yàlla tax bañ a naxante yaakaar naa loolu su amee dëgg dinañ mën a ànd bokk benn buum ku ci ne joxe sa xalaat mais ñu xool lay amal groupe ba njëriñ wala askan wa ñu mën ko def kon defe naa loolu saam wax mooy li war am parce tamit bu fekkente ne kii di xëcc aw nit ki xëcc mën nañ fi yàgg di werante ah. te làmb ji solution bi ñu xaar comme ñu tëgg ko ak a loolu war nañ ko mën li may wax rek ay xam-xam ñoo nekk quoi ñoo ko wër. mu mel ni nag ñàkk déggoo bi tamit combat huis yi da koo yokk de ñuy organiser ñii di bañ ñii di nangu. waaw parce que ku ne da nga am sa gis-gis mais gis-gis bi li ci gë ku ne da nga am looy xalaat nit nag am droit gisam loolu bokkul ak diffison maanaam xaajaloo mhm. waaye li ñuy tudde xaajaloo mooy mhm. wax joo xam ne da lay leer na yow yaa ngi critiquer am yi wala yaa ngi koy wax te li nga koy wax waxoo ko lu objectif da koy wax ni rek de façon boo xam ne da nga ko contrôle nangam mhm. loolu mooy li nga xam ne moom moo dul li li yoon ci suma xalaat mais nag bu fekkee huis moom wala pépir wala leneen nit ñi mënuñ ciy bokk xalaat mais war na cee mën a toog ñun ñu ko seex acteurs yi waxtaan ci ba déggoo ci boo jaree ñu def ko ñu def ko mais il fallait que ñu toog bokk waxtaan ñëpp mais bu ñuy jaaree ni ñuy jaar nii moom mën nañ faa yàgg de. dëgg la dem sotti. Babacar combat MMA rëg-rëg taxaw di gën a dëggal boppam rek moom nee na il est confiant à 100 pour cent gëm na boppam daal jàpp na ne bu jàppee kii di euh, Alain rek mooy combat bi jeex na waaye ba tey kii di coach Jambon moom itam euh, xam na ne nag rëg am na énorme chance pour gagner ki nga xam ne moo di euh, adversaire am boobu. waaw rëg-rëg moom li ma la mën a wax ci waxoon naa la fan yële passé ci côté lamb ji muy def fii Sénégal. Mhm. gis nañ ko ci mu nekk xale boo xam ne nii. Mhm. tey bu yegsee fi mu yegsi ah ku gis ne ne na ngi maanaam bëgg li muy def te jox ko cër moo tax mu yegsi fi maanaam ci côté liggéey. Mhm. parce que rëg-rëg du summeeku nga ne entraîné wul te tournoi bu mu dem ndax rëg-rëg jëlu ko. Mhm. wala daan nañ mooy nekk information bi mais na information bi. tey defe naa su demee nag ba boole ci dugg ci MMA def ci premier fii à Dakar gagné ko tey moom adversaire boo xam ne ñu bëree ngi ci am xel ñaar ndax est-ce que dina ci mën dara bi moom mu ne moom. dina ci man dara defe naa kon li ma lay wax rek mooy moom la mu nekkoon gëm ko ba tey loolu la gëm ñu koy ñaan yàlla moom ci ndax couleur réew mi lay défendre moom euh, mm-hmm. na ay sens bien sûr am na ay sens parce que xale mm-hmm. a di suma xarit nekk fële ca Paris la France mm-hmm. waaw maa koy bigi bu baax d'accord ñoom nag déficit promoteur maanaam manque promoteur yi ñu am ak manque d'infrastructure ñu ngi koy ñaxtu rek yow loo ci mën a wax Babacar. waa dama naan déficit de promoteur bi moom. ca Thiès moom. Mhm. da yaakaar naa mën nañ ko fa wax waaye tamit terewul am na fa ñu fa nekk di fa góorgóorlu. Mhm. waaye boo xoolee mën nga ne Sidi Diakhaté ci biir Thiès mooy promoteur boo xam ne moom lañ fii gën a gis am na feneen ñoo xam ne ñu ngi jéem ñëw ñu leen di ñaanal ñu mën a ñëw ba loolu nga xam ne moom mooy buntu boobu ñu mën ko fatt wala turu boobu nga xam ne mooy loolu ci côté promoteur waaye ci ay wàllum infrastructure moom dama naan du Thiès kese sax Ndakaaru bi sa daa problème infrastructure fu ñu pratiquer sport bi bu bëggee dégg dëgg ah bu boo xoolee làmb arène nationale lañu am te boo xoo benn lañ am ci arène muy arène nationale à Dakar région de Dakar yépp te boo xoolee maanaam lañ fay maanaam ni ñu ko war a liggéey pratiquer sax wala ni ñu ko war a jariñoo sax demeegul noonu kon dama naan daal état bi tamit ci côté infrastructure ñu ngi defar yaa ngi dégg daanu dojul suuf mais nañu gën a yokk seen loxo quoi parce que tamit sport yépp ku ci ne war nga mën a am ay say infrastructure yoo xam ne saa boo jógee dem ci waxuma sax mais képp kuy yëngutu sport ci réew voilà Babacar ñu ñëw ci écurie Pikine mbooloo ci euh, cinq saisons ñu am ci dix-neuf victoires ak vingt-deux défaites mu mel ni rek défaites yi ñoo ëpp li nga xam ne moo di victoire yi waaw kon jógee nga sunu làmb ñëw record ah? loolu mooy jàngatu Abou Ndour mhm. topp na leen cinq ans dix-neuf victoires vingt-deux défaites ah mu écurie boo xam ne wax dëgg yàlla amoon na jamono moom mu ngi nekkoon ci kaw di dox normal mais gis nañ ne at yi passé mhm. ah dafa wàcce bu baax ndax boo xoolee nombre de combats yi boo ko kat boo ko boolee sax quarante et un combats la lay jox mhm. te defe naa ci 5 ans. Mhm. ak Pikine mbooloo bañ xamoon loolu yaakaar naa ne kon am na lu bëree bëri lu des. defe naa ña ko wër nag muy ñoom Pala Diop ñoom Baba Diallo ak ña leen yooxe ay kilifa ñoo xam ne war nañu mën a xoolaat. écrit bi nu ñu mën def ba mu gën a nekkaat ci kaw ndax daa bokk ci écrit yoo xam ne dafa yàgg a formé ay champion di leen wane mais nag ah, nañ gën a liggéey rek xëy na buñ gën a liggéey bu yàggee dara dina gën a feeñ quoi voilà ñu des rek ba léegi ci nga xam ne moo di rek rek moom nag nee na dem na rek fee di Singapour ngir rek défendre les couleurs euh, du Sénégal ah bien sûr réew mi lay défendre tey parce que ku muy dajel Cameroun la foo ko drapeau Cameroun lay défendre mm-hmm. moom muy défendre drapeau Sénégal ah, ñu koy ñaanal yàlla rek Mhm. réew mi muy défendre suba mhm. yàlla na ko ci ndam lu rëy fekk yàlla ko ci ndam lu rëy fekk parce que lu may wax rek ah, wax dëgg yàlla dompati ci sot la bokk te itam suñu doomu réew la dëkk fii départ fii mhm. fas yéene dem Singapour ngir jongante ji côté rek bi daal ñu ngi koy ñaanal suba mu am ndam lu set wecc te leer nañ te mu jik ko lool ta amiin amiin ñu ñëw ba tey rek ci combat wi kolo yi ndax dina am wala du am euh, nga yaakaar ne waruñoo mën a déménager arène yóbbu ko Gambie ah waaw ça départ rek waaye Gambie te ab république la Mhm. waaw am seen ay institution am seen président loolu lépp defe naa ne dafa am lu muy laaj su keroogee mhm. est-ce que dina mën a ne wala du mën a ne mhm. loolu sans départ xool ndax promoteurs yi koy bëgg wala ñuy bëgg a dem Gambie bu ñu leen mayee ndigalul ñu ñëw Gambie loolu war na mën a ne parce que Gambie ak Sénégal moom nga tëgg fa làmb benn la rek boo xoolee parce que oto ngay jël dem Gambie waaw am na ñoo xam ne sax ay sénégalais yoo xam ne mën nañoo dox dugg biir Gambie parce que ñu ngi frontière mhm. parce que ñaari réew yu benn la xëy tubaab bee ñu xaajale rek mhm. ma ciy profité du nuyu Gambie yëpp Gambie moom dem naa fa làmb mais dëkk la bu neex a neex a neex a neex macha allah trop Arena ak Gambie tamit loo ci mën a wax waaw loolu daal ñoom ñu ci suma ay gëstu yu ñuy am ñoom la xalaat mooy tey bu fekkente ne làmb ji ah mënuñu tëgg fi mënuñu fi tëgg mm-hmm. ñoom dinañ jéem a def le tout pour que seen làmb ñu tëgg ñu yem ko yóbbu gàmbi ñoom waa Vox mm-hmm. ah, li ma lay wax sànq rek ko amul yaay nàmp maam waaye bu ñu sañoon fii lay amee ñu demee ñu bëgg la fa fekkee mën ne mooy dem gàmbi tëgg ko fa te xam naa boo ko fa tëggee nit ñi ndax gis nañ bëri ki démb layti ndoom tëgg fa tournoi wu làmb nit ñëpp dañu dem seetaani ko voilà noonu lay demee Gàmbi bi daal boo bëggee dégg rek euh, dëgg Babacar bëgg naa nga jiitu ma topp sa ginnaaw ñu dem Gàmbi de tëggee ko fa dem mosuma faa dem waaw naa fa dëgg yàlla dëkk bu neex la macha mm. mm. ma bëri fay soppe may nuyu ñoom Jiba Touré ñoom Père Ndongo Cissé ak Paate Gambia ñëpp ay doomi Gambia la ñoo xam ne nii suma ay waay lañu ak Xadijatu Sow borom White House di nuyu tamit Jamaïcain parce que moom moo ma dugal Gàmbi quoi voilà Babacar kon nag yegg si nañ ci càppandaw bi càppandal bi ah. càppandaw <laughs> am sant tudd abi dëkk gay jaay. waaw moo tax séeréer laa nag dégg mu olof may joom. séeréer da nga ma gën a nekk séeréer man joom laa sant. séeréer ci yaay séeréer ci pap man ci yaay maam maamaat. voilà Babacar nii lay demee saa su nekk rek lan mooy sa dernier mot. xama kàddu gu mujj kay mooy santaat yàlla. santaat yàlla waaw julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi ko Sénégal. Mhm. di nuyu suñu soppe yépp fu ñu mën a nekk rek si àddina bi. Mhm. ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ziar waaye di jaalewaat rek sama waa dëkk Issa Sène moom ma fa tuddoon démb yàlla jël ko démb. Mhm, yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana di ko jàll fépp fu doom ak yaay nekk rek wala képp kuy bawal bawal di ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm Sénégal ami di la ñaanal jàmm di nuyu staff bi yëpp ah rawatina nag chef de production bi mm-hmm. El Hadj Diouf Mama ah maa ngi koy béggee xulle kenn du moom taalibe Baye Niass di nuyu Abdou Saliou Male taalibe Serigne moom tamit ñu leen di nuyu ñoom ñëpp jàmm Sénégal voilà mbokk téléspectateurs yi fii la ñuy yem ak ba suba incha allah